day pour me souffre violence. Daffodil, voix et leadership des femmes bu sësi Sénégal réseau sigil jigéen ànd ci ak rajo Afia FM ñoo leen jagleel bi émission ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni dafa aju ci fitna ak métital yi nga xamante ni ñi ngi koy teg jigéen ñi nekk ci biir kër yi ban taxawaay lañ war a amal ci ñoom ci wàllum xel ak xalaat waaye ci wàllum nekkin soxna Yvette Betty Mendicor dina si dalal ñii di waa COFILEF waa réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales féminines xiis africaine ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ngeen mën see bokk bu ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 Afia FM ngir Afia askan wi. Afia FM 93 point 0 ñu leen di nuyu fañ leen daan nuyoo rajo askan bi fas yéene nag amal waxtaan bu yaa tey jii nag ñu ànd ci ak voix et leadership des femmes du Sénégal ci njàppandalu CECI Sénégal ak réseau Siggil Jigéen émission bi nag liñ ci waxtaanee tey ji bokk na rek ci aar ak toppatoo bi ci war ci ñi nga xam ne rek ñu ngi dund ay métital ak i fitna ci biir kër yi rawatina jigéen ñi lay doon waaye itam ani rek ban gunge ak ban uh, taxawaay lañ leen war a amal uh, ci wàllum uh, xel xalaat ak wàllum nekkin li ni mel la ñuy waxtaanee bëccëgu tey bi duñ ci wet benn yoon ndax kat dinañ ci ànd ak ay jigéen yu mën li ñuy def rawatina ci kuréel yi nga xam ne la ñu ndax ci li ni la ñuy yëngu. aar ak nekkinu jigéen eh, saytu ko ba mu mat waaye itam gunge ko ci li nga xam ne rek moo xam eh, ci wàllum nekkinam waaye itam ci wàllum métital yi nga xam ne mi ngi koy daj ci biir këram waa ko fi lef lañ ci àndal waaye itam waa forum des éducatrices africaines ak waa réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales ñi leen fi teewal tey bokk na rek ci madame Mariama Alpha Sidia madame Dia maa ngi lay nuyu di nuyu askan la jaajëfal ci ñëw fii ci Afia pour euh, jàngat ci mbirum métital yi ak euh, tolof tolof yi jigéen ñi di dundee ci période bi ñu nekk ci période mbas bi Mm-hmm. jërëjëf soxna Betty. Mm-hmm. ñu daal di nuyu rek eh, ki nga xam ne rek mooy Aïcha Aïcha ñu ngi lay nuyu. wii Betty maa ngi lay fay eh, di lay jaajëfal bu baax a baax man maa ngi tudd Aïcha Manga bokk ci kuréel gu ñu wax moom mooy réseau de jeunes pour la promotion de l' abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d' ñu fas ni tey gi teewal waxtaane li nga xamante ni moom moo ñu fi tax a jóg. Mm-hmm. ñi nuyu nañ la. Betty maa ngi lay fay di la jaajëfal aussi ci invitation bi comme ni ko sama naataango yi waxee ñu ngi teew fii tey pour wax àddu xalaat waxtaaj ci métit yi ñu méttital jigéen rawatina ci période mbas mi di Covid 19. Mm-hmm. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waaye itam di rafetlu li nga xam ne rek mooy seen teewaay ci biile émission. bu am solo ni ma leen ko waxee sànq rek tey ji eh, dañuy waxtaanee li nga xam ne rek mooy ani nan la ñuy def ba aar ak toppatoo jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dund ay tolof tolof eh, ci seen biir eh, kër ci seen wàllum nekkin waaye itam ani nan la ñuy def rek ba gunge leen waaye itam am taxawaay bu am solo bi nga xam ne rek dinañ ko mën a am ci seen wàllum nekkin seen wàllum xel ak seen wàllum xalaat. rawatina nag si jamono mbas mi nga xam ne amaana am na yenn métital yi nga xam ne jigéen yaa ngi ko doon dund waaye itam fi mu toll ni ci la gën a siiw dañuy bàyyi rek madame Mariama Alpha Dia mu dellu siwaat ci mbir mi jërëjëf euh, soxna Betty man maa ngi tudd euh, Mariam Alpha Sy madame Dia man maay njiitu kuréel bi ñu naan COFULEF mhm. boo déggee COFULEF maanaam ci nasaraan convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin Mm-hmm. ñun ñooy kuréel gi nga xam ne ne ay mbooleem jigéen yuy liggéeyee ci daara yu mag yi ci senegaal parce que ku fi fi mu nekk teew na ci université yi ci Sénégal gi yépp ñun ñu ngi yëngu ci mbirum fexe nu jigéen di jëme kanam nu jigéen di bokk bokk ci mbooloo mi nga xam ne ñooy jiite lépp loo xam ne ne am na ci université yi Sénégal yi ni ma la ko mën naataabloo naatabloo rek ci mm-hmm. ci gàttal mooy euh, bi ñu dalee di xeex boobu xeex daal di ne jigéen ñi ñoom wax dëgg yàlla seen njàng may na leen foo xam ne ne fu góor yi taxaw ñu war faa taxaw mësuñu woon am jigéen juy jiite ay université fii ci Sénégal léegi loolu dakk na bés ni tey bii may wax yow am na ñetti jigéen ñoo xam ne ne ñooy ay université fii ci Sénégal mm-hmm. euh, bu loolu wéyee maa ngi rafetlu torop teewaay bi ñu teew fii tey pour mën a wax li nga xam ne ne mooy euh, li jigéen ñi di dund ci jamonoy mbas mi ñu nekkee mm-hmm. parce que li ñu war a wax euh, soxna Betty mooy il faut que ñu wax askan wi yëpp il faut que ñëpp yëg ne euh, jamonoy mbas mi bare na ay coppite yi mu indi ci nekkin yi jigéen yi nekkee woon te ñoom wax dëgg yàlla bu doon am na ay métital yu ñu daan yëg balaa mbas mi di ñëw bi mbas mi ñëwee affaire bi dafa yokk mhm. parce que li ko tax a yokk mooy euh, fi mu nekk dëkkuwaay yi dina xat période yi nga xam ne dañu ne nit ñi nañu toog seen kër yi en période de semi confinement maanaam bu fekkee ne am na ay kër yoo xam ne ne ay par ay fukki nit ñoo fa daan nekkandoo par bëccëg parce que ñii dañuy liggéey guddi ñii liggéey bëccëg mhm. période semi confinement bi ak couvre bi taxoon na mbooloo moom yëpp macha allah ñëw dajale ko ci benn place loolu day indi ay jafe-jafe ay xat-xat mhm. yoo xam ne ne vraiment jigéen ñaan ngi koy dund mhm. léegi li ñu tax a jóg li tax euh, émission bi mooy bu ñu xoolee lan moo waral métit yooyu ñu jéem a seet nuñ ko saafara e surtout nu ñuy def ba nga xam ne ne dinañu jàppale jigéen ñooñu nga xam ne ñu ngi dund bi métit mhm. naka lañ koy naka lañ leen di jàppale ñun suñu wàllu bopp parce que ñun ñu fi toog yépp muy COFULEF di réseau des jeunes ak FAWE li ñuy toppatoo mooy vraiment euh, lépp loo xam ne ne dina aar jigéen ñi dina leen euh, jàppale pour fu ñu war a egg ñu egg fa ñu bañ am benn xat-xat benn jafe-jafe. Mm-hmm. ñu koy rafetlu bu baax a baax ci sa intervention boobu dañuy jàll ci Aïcha Aïcha ñu fàttali rek ni moom moo bàyyeekoo rek ci réseau euh, des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations euh, génitales Aïcha tey jii ñu ngi wax waxu mbas mi waaye itam euh, fësal li nga xam ne mooy métital yu jigéen ñi di jànkonteel naam ñu ngi doon jànkonteel ay métital bu baax a baax ngeen jàpp ni mbas mi xëy na yokk na yenn ci lan ngeen sukkandikoo ba mën a natt li ni mel waaw euh, boo gisee ñu jàpp ne mbas mi dafa yokk bu baax a baax ndax dañoo de ubbi ab enquête bi nga xamante ne dañ koo def. Mhm. mu nekk euh, ñun ñi jeunes yu nekk ci réseau des jeunes waaye itam ñi nekk waa Kofilef ak waa Fawe ñu liggéey li nga xamante ni mooy ci enquête bi daal di gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa AGS euh, waa AIMO gis itam Maison Rose bu nekk ci Géejawaay. Mhm. di fàttali nekk AGS moom moo nekk li dafay liggéey si partenariat sociale des femmes. victimes de violence basée sur le genre à travers les boutiques de droit ndaxte waa AGS dañoo am seeni boutiques yu nga xamante dañ ko tuddee boutique de droit ci boutique yooyu noonu dañuy euh, xeex li nga xamante ne muy àq ak yelleefu jigéen ñi sur le plan juridique maanaam ci yoon bu ñu demee ci ki nga xamante ni moom mooy AYMO moom muy liggéey ci lépp li nga xamante ni moom mooy xale yu dund victime mm-hmm. surtout les mineurs dund également li nga xamante ni moom mooy violence dund itam li nga xamante ni moom mooy viol dundu abus ah ngir euh, ngir sàmm leen ba tey jii ñu mën a génnee ci situation bu ñu nekk ñoom ñu jël tranche d'âge bi nga xamante ni moom mooy de zéro à vingt et un mhm. ñoom la ñuy jël en charge mhm. seen cadre ci jàng ci njàngale bi mhm. si jàngalewaat jàngale la encore ñu mën a dugg ci biir société bi mooy réinsertion sociale bu ñu demee ci ki nga xamante ni moom mooy waa maison Rose bu Guédiawaye ñoom itam wax dañuy xeex ak àq ak yelleefu euh, doomu aadama surtout jigéen ñi ci période Covid bi ndax gis nañ fa euh, bi ñu gis nañ fa ni euh, ci période Covid bi violence dafa yokk ndax gis nañu femmes yi nga xamante ne du ñu ëmb sax ba nekk seen dernier mois dem seen seen seen borom kër yi dàq leen ci kër gi. et que mm-hmm. Rose également ci yooyu la nekk du yëngu même gis nañ ni également seen seen. ci seen ci seen système de travail ñu ngi liggéey ak ñi nga xamante ñoom ñooy xale itam mhm. gis nañ xale yu fay accoucher et cetera donc ñoom ñëpp dañuy liggéey ci li nga xamante ni moom mooy prévention yi ba loolu moo tax a tey gi Euh, d'après suñu enquête bi ñuy def mën a xam réellement lan la femme yi nekk di dund ak lan moo tax violence yi gën a yokk ci période de Covid bi. Mhm. mu doon euh, jéego yu am solo yi nga xam ne rek seen la euh, jot na koo def waaye itam jaar ci bërëb yu bëri ci mel ni Maison Rose ngir mën a natt métital yi fi mu toll ak ñi mu daal ñi nga xam ne mooy jigéen ñi. waaye ñi laan bu ñu dellu see ci yow rek daanaka nit ki boo ko bëggee dimbali faaw nga fekk ko ca la mu nekk wala fa mu nekk pour nga dimbali ko est-ce mën a sol seen dàll mën a dem ci yile bërëb ak liggéey bi nan la demee woon ci terrain bi. jaajëf euh, Betty. Mhm. danga may may tuuti rek ma fàttali. Mhm. parce que liggéey bi ñun ñett kuréel yi ñun ñoo ko ŋànk. Mhm. bokkoon muy réseau des jeunes. muy Kofilef ak FAWE. ñetti kuréel yooyu yëpp. daanaka boo xoolee ñun ñoo bokk ci lu ñuy yëngu. ñun ñëpp dañuy xeex métital jigéen. boo xoolee FAWE bi ma bokk forum des éducatrices. Mm-hmm. boo ne éducatrice sa xel day dem si jigéen. Mm-hmm. mais dafa di kuréel goo xam ne am na ay góor yu ci bokk parce que am na ay góor yuy xeex ak yeleefu jigéen yi. Mm-hmm. te ñetti kuréel yooyu muy COFILEF muy réseau des jeunes muy fawe muy réseau Siggil Jigéen ñu ñëpp dañoo yàgg di àddu di yëngu ci thématique yu mel ni lu. jëm ci ak yelefu jigéen ak xale yu jigéen yi. lu mel ni euh, métital jigéen ba tax na. yomboon na yombul si ñun pour ñu def liggéey boobu. mais mhm. comme ni mu ko waxee malgré tout cela def nañu liggéey boobu. mais balaa may àddu jëmmale ci difficulté yi yi ñu rencontré ci liggéey boobu. Mhm. danga may may rek euh, ma remercier structure yooyu. yi ñu mhm. recevoir jaajëfal leen. muy euh, waa AGS. mooy juriste yu jigéen yi. di waa AEMO nga xam ne structure nguur gi la. di aussi waa Maison Rose. ñu ngi leen di wax euh, jaajëf un grand merci parce que tout simplement période bi ñu dem si ñoom booba ñu ngi wàccalu tabaski bi xatoon na mais n'empêche dañ doon nekk wàcc sax mais defal ñu après seen liggéey recevoir ñu dalal ñu jokkook ñun échanger ak ñun ba mu ñu mun a am données yooyu ñu soxla woon mm-hmm. mais comme ni nga ko waxee rek liggéey boo gis dinay am ay jafe-jafe ba tax na bi ñu demee Maison Rose maison rose Aïcha expliqué na ko léegi mhm. li def euh, particularité moo di ne dafa nekk kër gu yaa mhm. boo xam ne benn ku jigéen benn tubaab nasaraan moom moo ko jiite mais kër goo xam ne yaa na ci espace bi mais yaa na aussi ci nekkin bi mhm. boo dugg see da lay daal di frappé parce que li ñuy naan R plus 1 la da ngay gis jigéen ñi ay jigéen ñu wérul ñu yéeg di kii boo dugg see tu vas te lan moo ma dalay frappé da attirer sa attention ñii lan lañ fi def boo xamagul exactement lan moo leen fi andi. Mhm. maintenant ba tax na difficulté yi bokk na ci li nga xam ne Maison Rose dañ fay rencontrer ay jigéen ñoo xam ne de nationalité différente am na ay nigérian yu fa nekk am na ay guinéen ak yeneen nationalité yoo xam ne le problème de langue se pose mm-hmm. du ñu mun a échanger ak ñoom pour wax ak ñoom pour ñu mm-hmm. wax àddu euh, jëmale si ñun mm-hmm. mais terewul aussi malgré tout cela directrice bi jàpp na ci ba ñu mun a am benn témoignage témoignage bi nag nekkul directement Euh, une violence basée sur le genre mais dafa nekk en rapport ak li ñuy waxtaanee maanaam mbas mi mbas mi nga xam ne dafa am lu mu gàllankoor lu bëri lu mel ni revenu yi maanaam am am yu wàññeeku mm-hmm. ba tax na ki ñu dajeel comme ni ma ko waxee léegi nii tout mm-hmm. nekkul ku jotee ku ñu métital mais peut-être métital ci xel parce que jigéen bu wérul la mm-hmm. mais aussi malgré tout cela nangu na àddu expliquer ñu waxtaan ak ñun lu mu vivre mhm. mais contrairement aussi am na ñoo xam ne nanguwu ñoo wax ak ku ñu xamul parce que aussi c'est pas évident c'est mhm. pas facile sa euh, sa problème nga koy wax ak ñoo xamul loolu daal moo mhm. nekkoon difficulté yu ñu rencontré ak aussi kuy wax euh, travail de collecte de données aussi dañoo soxla ay chiffres pour mun a firndel bu baax a baax que ne liggéey bi bu ñu demee sur le terrain li yëg li yëg li yëg li bi mbas mi ñëwee tant de cas lii ak lii mhm. loolu aussi nekkoon na lu gàllankoor parce que après semi confinement bi ci la structure yooyu yu bëri commencé nekk seen liggéey ce qui que bi ñu demee fekk leen dañ leen a fekk en cours de travaux ba nga xam ne liggéey yooyu ñuy def mhm. parewuñ ko finaliser wuñ ko ba mënuñ ñoo baaxee li ci données statistiques yi mhm. loolu moo tax mu xawoon am gàllankoor tuuti si liggéey bi mais macha allah ñoom dimbale nañu ci côté boobu ba ñu mun a am yenn information yi ñilaan ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu gis liggéey bu am solo bi nga xam ne rek yéen a ngi koy def ci terrain bi ñu fàttali rek li ñu boole tey muy voix et leadership des femmes du Sénégal. du Sénégal ci njàppandalu CCI Sénégal ak réseau Siggil Jigéen ñoo ñu boole tey ngir ñu amal bii li émission waxtaanee ci nag ani nan la ñuy def rek ba aar ak toppatoo ba ca war ñi nga xam ne ñu ngi dund ay métital rawatina ay jigéen moo xam ci seen biir kër ak yi ni waaye itam ani nan la ñuy def ba taxawu leen moo xam seen wàllum xel seen wàllum nekkin ba ñi mën a bañ a sëngeem ci métital yooyu le ngeen ànd ñu ànd ci nag ak waa COFILEF waa forum des éducatrices africaines waaye itam ak waa réseau des jeunes euh, pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales li ñuy boole waxtaanee itam bokk na rek ci fi mu ne nii natt ngeen seeni i kuréel boole ngeen seen doole ànd saytu dèjà xool ni kat fi mu toll nii mbas mi ñëw na métital yi gën naa tar gën naa yokku waaye itam dajal daj jànkonteel ngeen ay jafe-jafe ci seen wàllum liggéey fi mu toll nii nag li ñuy laajte kay mooy ci biir liggéey boobu natt ngeen lépp fu mu toll nii ba xam ani lan la jigéen ñi di daj. waaye itam ban taxawaay ngeen am yéen fu mu toll nii ngir mën a aar ñi ni mel waaye itam fagaru ba li ni mel du leen dal. ñu dooree koog madame Dia. jërëjëf euh, soxna Betty dama bëgg euh, nga may ma tuuti rek. ma mhm. dellu si ci euh, témoignage bi. Djilaan bi demoon euh, Maison Rose. Mhm. mën a recueillir ci ndaw si. mën nañu teg témoignage bi soo leen bëggee. ñu dellu si ci témoignage bi dina wane lu bare. Mhm. ma may la rek nga dugal. témoignage ñu dugal témoignage bi dellu si mhm. jërëjëf. fukki at benn affaire corona sama jikkër fruit a doon jaay léegi nag ba mu doon jaay fruit affaire bi yëpp yàqu léegi nag si néeg léegi lañ nekkoon ñu génnee ñu ndax yoruñu lu ñuy faye luwaas ñuy fanaan si suuf taabal bi léegi nag ma jël si om omo ku ma jàppale ma daa dugg si liggéey mbindaan di liggéey ba mu am 6 mois ma daa di arrêté ndax mënatuma léegi affaire bi daal lépp yàqu léegi nag amatul lu muy jaay te man maa ngi ni ëmb ba ma xam ne dama ëmb te léegi aw ma ku ñuy jàppale man ma dugg lii mm, ay liggéey mbindaan yooyu man liggéey mbindaan yooyu pour man fa sama ndax yorul xam naa tamit su yoroo dama ko defal loolu laa doon commencé ba ma diis daal mënuta a liggéey ma daal di arrêté muy madame Ndoye moo ma yabal fii fii si maison rouge mu ma ñoom ñun dañuy jàppale ñu amuñu moyen soo ñëwee fii dañ lay jàppale say garab dañ lay mën a jàppale tamit loolu amul benn problème ma ne kon garaawul daal koy topp ñëw fii ci Meseeruur waaye nag affaire corona bi yàq na lu ne ndax maa ngi nii instant affaire corona ba muy dugg sama yaay la gaañoo nag mu bàyyi ay xale man yoruma lu may toppaleto samay samay rakk yi daal sama jëkkër amul su yoroon man mën naa toppatoo samay rakk yi waaye owuma ma rakk yi ñu sama tànta muy sama wujju yaay affaire corona moom yàq na lu ne dëgg yàlla maa ngi am ñaar fukki benn laa am Ousmane Diallo laa tudd affaire corona bi daal yàq na lu ne daal léegi yàgg sa jëkkër est-ce que ñàkk liggéey boobu mu doon liggéey moom liggéeyam doxatul est-ce que jote ngeen ci échanger wax yu naqari wala ngeen jote wala yooyu noonu. déedéet duñ jote ndax lan dama kaa xam moo tax damaa xam ne ba mu yoree liiwu ma dara lu lu bëgg a dama koy defal xam naa loolu moo tax ba mu amul man tamit comprendre ko nit na dañuy wax ne su amul da ngay naqari dareet waaye soo nekkee ku la comprendre doo lañ jote. léegi fi nga doon liggéey di daan sa doole foofu pour am doo fajee garab. Mm-hmm. lu tax nga jóge woon foofu est-ce nga doon traité. baax na wala liggéey bi ñëw fii ndax liggéey bi damaa diisoon te mun ma fomp moo tax ma arrêté léegi na oobu ku ma jàppale ma dem dooy wax na ma ñëwal fii si maison rouge ñoom man nañ laa jàppale ba yàlla may la jàmm sa jëkkër dina ñëw di la seet si sama jëkkër waa dina ñëw di ma seet si maa ngi am ñaar fukki mhm, moo nekkoon témoignage bi nga xam ne rek ñi laan jëlee nga ko maison Rose madame Dia loo ci bëgg a yokk waaw Euh, témoignage boobu. Mhm. li muy firnde mooy li ñu waxoon ci jalbeen rek ndaxte mbas mi itam. Mhm. xam nañu ne li mu jur bare na lool. am mhm. na ay conséquences yoo xam ne ne dinañ ko gis ci bépp plan ci askan wi ñu ngi koy dund muy seen mode di ni ñuy dundee. Mhm. nit ñi seen lépp daal fi mu nekk nii mbas mi daf ko ñëw daal jaxase yëpp. Mhm. léegi témoignage bi li muy wane mooy nekk mbas mi moo indi surtout ci jigéen ñi li ñuy wax ci tubaab précarité. Mhm. mooy xat-xat yi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy dund. boo jëlee exemple jigéen bi nga xam ne ne dafa daan daan dooleem ci ay liggéeyu ndaw seetal ndaw su yeewu suba. togg marmitu fondeem dem di ko jaay léegi buñ ne semi confinement mënatul def loolu mhm. amatul lu muy fu muy fortaatoo loo xam ne da koy ñëw di dimbali ko njabootam loolu day indi ay xat-xat mu indi jafe-jafe mu mel nii ndaw si témoigné léegi mhm. di wax ne moom dafa mujjee sax ci suufu taabal bi jëkkëram daan jaayee fruit foofu lañu ñu mujjee def seen nekk pour mhm. wane ne rek boo seetee lépp loo xam ne ne mbas mbas mbas mi yokk na ko ci xat-xat yi jigéen ñi daan dund di nga gis ne suñu xoolee jafe-jafe yooyu rek dinañu mën a am ay euh, dimbal yu ñu dimbalee askan wi dimbalee ko particulièrement particulièrement jigéen ñi mm-hmm. ñu waxee euh, pré li ñu naan précarité économique par exemple xat-xat yi nga xam ne ñu ngi doon def ay liggéey yu sew sewaan di dundeel su fekkente woon ne am nañu ay structure yoo xam ne ne dinañ leen mën a jàppale ba ñu jóge ci bii euh, période bi ñuy dund muy période mbas mi loolu dina baax torop da ngay xool itam lan mooy favoriser métital yi ñuy métital jigéen ñi wax nañ ko sànq mooy vraiment xat-xat yi kër yi mujjee nekk mm-hmm. soo xoolee ñun ñii di jàngalekat lenn moo ñu jëkk a frappé mooy li nga xam ne ne léegi tëj nañu bërëbu jàngalekaay yi. Mhm. ñu ngi jéem a seet neneen lu ñuy jàngale ñii ngi ci télévision bi ñii ngi ci téléphone bi waaye du tere même espace boo xam ne ci biir kër gi ku jigéen ki mën na fa toog jàng kooku am na yenn kii yoo xam ne ne jafe na fa lool pour ne vraiment amu fa sax. Mhm. dangay xool ni tamit léegi bi ñu décidé ne waa léegi. def nañu déconfinement ne ñëpp dem ci seen i activité bu dee pour école yi élèves yi nga xam ne ne ñoo nekk classe su examen mën nañoo dem ci classe yi mhm. dañu fàtte ne am na ci élèves yooyu ñu nekk classe examen ñoo xam ne ne seen wér-gu-yaram mayu leen ñuy dem ci ci ci mbooloo ñuy mhm. dem ci école yi ci mhm. jamono ji ñuy dund mooy élèves yi nga xam ne ne ñu ngi am ay feebar yoo xam ne ne gàllankoor la daf leen di def li ñu naan ay personnes vulnérables mhm. ah, mooy euh, yenn feebar yoo xam ne ne nga may ma ba bañ ci egg waaye xam nañu bu baax catégorie élèves yooyu bu fekkee ne woon ne jublu nañ ci ñoom ñu seet itam naka lañ leen di jàppale loolu dina baax trop mhm. parce que mooy li ñu doon wax rek dès ñu liste li nga xam ne ne mooy li indi jafe-jafe yi mhm. bu ñu ci jéemee ut solution rek yëf yi dina gaaw. dina gaaw waaw. Mm-hmm. ñu jàpp ni ku bëgg bokk ci waxtaan bi 88 ngay def 628 05 05 ngir bokk ci waxtaan bu am solo bii nga xam ne rek dañuy waxtaanee tolluwaayu mbas mi waaye itam métisal yi nga xam ne jigéen yaa ngi koy daj ani ban taxawaay la ci nit ñi war a mën a am aar leen toppatoo leen waaye itam seen wàllum nekkin ak seen wàllum xalaat ku bëgg bokk ci émission bi 88 ngay def 628 05 05 Afia FM 93 zéro ñi wëyandi waxtaan bi ba tey ci wàllum euh, accompagnement ak prise en charge la ñuy ñëw ndax kat ku ne dangaa nemmeeku euh, jàngoro nit ki ba noppi gis ni kat fi mu toll ni xëy na mbas mi ñëw na indi ak ay loraangeem daanaka gën a taral mbir mi faw nit kooku itam nga mën ko gunge jàppale ko bu ñu ñëwee ci Aïcha ak ñilaan euh, nan ngeen fas yéene def rek ginnaaw bi nga xam ne nemmeeku nañu jàngooro yi nga xam ne jigéen yaa ngi koy jànkonteel ba noppi ani prise en charge bi ci war nan nañ koy defee. Euh, waaw euh, pour ñun prise en charge bi bu ñu gis ni am na solo trop mooy accompagnement psychosocial des victimes. Mhm. des violences basées sur le genre. Mhm. war nañoo mën a gis ni femme bi am na problème. et les victimes de violence war nañ ko mën a suivre war nañ ko mën a def ay référencement ne ko mën nga dem ci telle structure mhm. bu fekkee juridiquement parlant mën na ne ah AGS mën na ko accompagner mhm. nekkool fii nga war a jaar am nga possibilité am avocat bi am nga possibilité nga am sa sa réponse ci li nga xamante ni moom mooy ci wàllum yoon am na également possibilité am euh, soin psychosocial dina dugg ci cadre psychosocial bi parce que tout simplement femme bi aussi mën na nekk koo xamante ne psychologiquement am na ay violence yoo xamante dañ ko koy def ba du mën a wax surtout les victimes de viol loolu lépp dafa nekk structure yi nga xamante ne dañ ci euh, waxtaanee juste pour benn accompagnement pour la femme mm-hmm. mais aussi am na ñi nga xamante ni également dañuy liggéey ci li nga ci ci ci wàllu médecin ci kaal wàllu médical mm-hmm. dañ ci dañ ciy liggéey ñoom également dañ ci euh, dañ ciy def li nga xamante ni moom mooy seen seen seen wàll mm-hmm. waaye itam si boo gisee euh, accompagnement yi nu mu gën a am tolof tolof mais dañoo choisir que nañu multiplier mooy centre dëkk yi mm-hmm. que tey femme bu nekk boo amee lu lañu lu la lu la wopp man mm-hmm. war ngaa mën a am au moins sa milieu bi ngay dund benn euh, structure bi nga xamante ne mi ngi foofu ngir yow mi jigéen mm-hmm. nga mën cee nga mën a ñëw exprimer wu wax lan mooy sa problème ñilaan bu ñu dellu siyee sànq moom mi ngi wax Aïcha mi ngi wax li nga xam ne mooy euh, teg nañ ko yoon bi nga xam ne rek nit ki bu dajee ab métital mën na cee jaar ngir am dimbal mba ca war waaye bu ñu seetloo sunu société nu mu tëree dañoo bëgg di regle sunuy biir kër di sàng sunu bopp sutura ak di bañ a gaaw a boole ak di muñ ak yi ni yooyu nga xam ne yenn saa mooy tax ba nit ki euh, daanaka muñu kaayam buy jeex day fekk xëy na situation bi ëpp na ko doole wala xëy na mbir mi mujj naa ñaaw ba liñ naan ndox mu tuuroo an bàkka ciy des yéen lan mooy seen taxawaay ca njëlbeen déjà pour que nit koo kooku nekk en confiance ba mën a dem ci structure yooyu mën a jot ci ndimbal yi. jaajëf euh, Betty dès que bi woote. Mhm. soit ci numéro vert bi. wala mu def alerte bi ba wala mu déplacé wu demal boppam fu mel ni AMO wala fu mel ni Maison Rose ñoom dañ koy dalal d'abord parce que nit ki balaa ngay dem ci wàllu yoon danga koy dëfal parce que métit métit nit ki mun nga koo def yow gunge procès mu gagné procès ba nit ki mun nga koo jox kër dugal ko fa mais métit ki li nit ki di yëg ci xolam boobu kër wala procès bu ñu gagné mënu koo dindi. Mhm. ce qui fait que accompagnement psychologique boobu Aïcha wax léegi dafa important. Mhm. ba tax na nit ki bu ñëwee structure yi ñu visité xamal nañu ne euh, particulièrement la Maison Rose dañuy daal di bokk dund métit bi ak victime boobu. Mhm. ce qui que dañ koy jox li ñuy naan estime de soi. pesanteur sociale yooyu yëpp di peser ci moom. Mm-hmm. lu mel ni stigmatisation ci kooñam kii dañ ko siif kii dañ ko nangam. Mm-hmm. dañ koy may estime de soi ba nga xamante ne. Mm-hmm. dootul nekk gàcce ci moom mais dina mun a sigi. dund ko tey mais pour préparer demain. Mm -hmm. ce qui fait structure d'accueil yooyu wax nañ leen a dooleel parce que sànq Aïcha wax na ci multiplier structure yooyu. bu ñu demee AEMO nga xam ne affaire état la. Mhm. état war na ko mun a yokk am nañu lu ñuy naan euh, centre premier accueil. Mhm. nga xam ne c'est un centre de prévention d'urgence trois mois nga fay def. victime bi bu ñëwee am na ñoo xam ne du ñu bugg a dellu seen kër. parce que ñu ngi rus ñi ñi xam nañu dañ leen fay mettre pendant trois mois. di def médiation comme ni nga ko waxee mais du médiation bu wone ne victime bi day daal di fàtte ay métitam yooyu noonu bale jàll si leneen. mais mm-hmm. dañ ko fay làq di ko gunge. ci xel di ko gunge ba nga xam ne dina am confiance mun a jàkkaarloog nit ñi xam nu muy taxawee nuñ koy gungee pour mun a euh, saafara problème am mm-hmm. am na aussi Euh, centre polyvalent de Thiaroye xale yu jigéen yi ñoom lañu lañ fay yóbbu pendant trois ans dañ fay nekk pendant trois ans mu nekk moo xam non seulement elles sont en observation mais aussi dañuy jàng pour bañ a perdre estime de soi boobu ñu bañ a jàpp ne seen àdduna yàqu la mais ñu gëm ne seen àdduna yàquwul mun nañ ko defaraat dès maintenant mhm. ce qui fekk dinañ leen fa gunge balaa ñu fay jóge dañuy daal di nekk yeneen i jigéen mhm. ba tax na structure yooyu ñu war koo gën a yokk gën koo tas ci réew bi nga xam ne jigéen yi même ku ci nekk victime nga xam ne dinañ la mun a gunge yiir la ba nga xam ne di nga mun a pare pour jàkkaarloo waat ak euh, dund bi. Mhm. mu doon lu am solo parce que nit kii amul lu dul gëm-gëm gi nga xam ne am na ko ci boppam gëm boppam li ni dina tax rek saa yu fakastalo euh, mën a euh, siggi continuer waat ci yoon bu baax bi nga xam ne ci la nekkoon wala ci yoon bu baax bi nga xam ne ñu ngi ko fay jéem a teg dafa am solo nee naa leen 88 ngeen di def 628. 05 05 ñu daal di jël mbokk mi nekk ci ligne bi gën a wéyandi waxtaan bi mbokk mi asalaamaaleykum. mu mel ni rek réseau bi nangul waaye nee naa leen 88 ngeen di def 628. 05 05 ngir mën a bokk ci waxtaan bi waxtaan bi nag dara sabab ko rek lu dul waa voix et leadership des femmes du Sénégal ci ndappandalu CECI Sénégal ak réseau Siggil Jigéen ñu fas yéene waxtaanee rek nekkinu jigéen ñi tolof tolof yi ñuy jànkonteel waaye itam taxawaay bu am solo bi nga xam ne ay kuréel yi ci mel ni FAWE yu ci mel ni COFILEF yu ci mel ni réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales ñu ngi koy def sur le terrain ngir mën a teg ñooñu ci yoon waaye itam jox leen euh, li ci war ci wàllum ndimbal moo xam seen wàllum nekkin wala euh, seen wàllum xel ak seen wàllum xalaat muy accompagnement suivi psychologique bi nga xam ne rek dinañ ko euh, soxla bu baax a baax a baax ginnaaw bi nga xam ne ni wër ngeen ay structure yu bëri nemmeeku jigéen ñi ci yu nekk ak yi ni mel suñu ñëwee ci madam Dia COFILEF convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin yéen ci wàllum jàng ak njàngale ngeen nekk yaa ngi koy wax sànq amaana tey jii xale yu bëri eh, école tëj na ñu bàyyi leen ci kër yi parce que nekkuñu ci classe d'examen alors dina gën a métti suñu gisee suñu société nu mu tëddee yaay bi war a mottali dépense ndax eh, gis nañu fu mu toll nii mbas mi li mu indi ci jafe-jafe wàllum ko mu war a teggat njabootam war leen a aar te ñëpp daje ci biir kër yi te aar xale ci biir kër dafa metti parce que ku nekk mën na koo teg gët ku nekk mën na koo eh, teg loxo alors yéen ñii bu fekkee tey ji dafa am benn genre plaidoyer wala benn genre message bi nga xam ne di leen ko lancer femmes yooyu ak élèves yooyu nga xam ne tey ji eh, dinañu désapprendre sax parce que jàngatu ñun ci biir kër yi lan lay doon euh, message bi di jëkk a mooy ñu war a xam ne ne wax dëgg yàlla fàttewuñu leen fi ñu toll. ñun ci suñuy xalaat ci suñu yëngu-yëngu. Mhm. ñu ngi def lépp pour mën a am ay structure yoo xam ne ne. Mhm. jën lañ leen en charge. Mhm. même euh, ñi nga xam ne ne nekkuñu ci classe yi. ñu ngi ci kër yi ñu jéem a seet naka lañ leen di mun a organiser loo. defal leen ay euh, occupation bi nga xam ne ne dinañu mën a aar leen. ci mhm. lépp lu leen mën a dal. ak tam di yokk waxtaan beek ñoom yi mhm. ay structure structure d'accueil et d'écoute mhm. yi nga xam ne mën nañ fa ñëw jël fa ay xalaat yu bees weccante xalaat yi seen i naataangoog ak yeneen mag yu leen di xelal yi leen di digal. te euh, vraiment appel bu ñuy gën a lancer. mooy di woo autorités yi. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo mën a jàppale structure yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci biir fànn. Mm-hmm. ñoo leen mën a renforcer. léegi léegi nii rek euh, Ndilane mu ngi wax waxi numéro ver yi yi nga xam ne mën nañ ci woo. Mm-hmm. wante xam nañ ne numéro ver yooyu am na ñu bare xamuñu ne sax am na. bu dee am na itam am na yoo xam ne ne wax dëgg yàlla fonctionné wul. li ñu gënoon bëgg daal mooy autorité yi jël ko en charge mhm. jéem a toppatoo renforcer yooyu numéro vert et surtout ñu ñu tas xibaar yi ci askan wi wax mhm. leen ne fii ngeen war a jaar lii ngeen war a def am na ñu leen ñu taxaw pour dimbali leen te mhm. dimbal mi ñun ñii di dimbalee ak ñun ñii di woo institution yi nga xam ne ne ñooy toppatoo di dimbali askan wi surtout jigéen ñi dañu leen di ñaan di leen wax ne gis ngeen Euh, témoignage yi ñu fi def yëpp liggéey bu ñu mun ci def dañ koy mun a def ci sutura mhm. parce que li ñuy ragal muy après ku nekk da nga naan ah ñemewuma faa dem kat léegi ñu xoolee ma mi bët mhm. ak loolu il faut que ñu yeete daal askan wi wax leen bu baax lan moo ñu tax a jóg ak lan la ñu bëgg te li ñu bëgg rek mooy koom-koom yokk koom-koom yi mhm. dolli aar jigéen ñi euh, particulièrement parce que ñoom booy seet ñoom la affaire bi gën a gën a gën a touché parce que bu weesoo sax précarité économique bii ñu wax dañuy mm-hmm. fekk ne souvent ñoom ñooy nekk victime violence yooyu mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw Kumba day yokk njigéene Aïcha bu ñu dellu see si yow nga bàyyee ko ci réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def sur le terrain euh, tey jii nag bëgg ngeen ku leen yokk doole ndax euh, kat kuy def dara dangay ngay bëgg ku la ci fekk si mën la say jàppale mhm. ba sa liggéey jëm kanam tey ji xëy na amaana ngeen di xaarandi dara xëy na ci nguur gi mhm. ak yi ni mel lan lay doon ngir ñu mën leen jàppale fekk leen si seen liggéey boobu ba mën fee jëlee métital yooyu ñuy teg jigéen ñi waaw euh, ñun lu ñuy wax rek mooy di gën a ñaax te ñun duñu dañ ci gën di ñaax ñi euh, mm-hmm. nga xamante ne moom mooy suñu nguur yi mm-hmm. ak ñëpp ñi nga xamante ne am nañu kàddu fii ci réew mi mm-hmm. bàyyi ñu suñu kilifa diine yi bàyyi ñu suñu kilifa aada yi ñoom ñëpp la ñu woo ci xeex bi nga xamante ne moom lañu nekk di def di ñaax population ñu fekkee ñu ñu teewee li nga xamante ni moom mooy feebar bi nekk sunum réew mais itam ñu bàyyee xel ni jigéen ñu nekkul ñoom ñoo ñoom ñoo créé mbas mi jigéen ñi créé ñu mbas bi dañoo war a sóoraale ni ñoom waruñoo dund conséquence yi si am. Mhm. violence yi ci am viol yi am violence domestique yi si am jigéen ñi waruñu koo dund nekk ñoom ñoo ko créé. Mhm. donc ñaax gi ni ñaax mooy jeunes yi jeunes yi ci Sénégal yëpp lañuy woo. Mhm. ak képp ku fi yeewoo fii ci Sénégal. nga jël compte ki nga xamante ni moom mooy jigéen nga xam ni moom au moins nekk na ci société bi ñoom ñooy defar réew ñu bañ leen xokkatal. et que tey jii ñu bañ leen tum tum tum rankel ba du ñu mën a exercer li nga xamante ni moom mooy seen dund comme ni ñu ko comme ni ñu ko bëgg a defee. donc di ñaax ñëpp daal ñu bàyyi si bu baax. Mhm. ñu dem ci waa Fawe ak ñilaan nekkin bu mucc ay rawatina bu jigéen euh, ci waxtu mbas mi nga xam ne mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu méttee métti euh, seen kuréel euh, fas yéene taxaw rek gën a fësal méttital yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ginnaw enquête yi nga xam ne def ngeen ko ci terain bi tey jii boo leen soxla woon ndimbal ngir mën fi jëlee méttital yi yan ndimbal lay doon. jaajëf euh, Betty sànq wax nga ko. Mhm. kumba de yokk jigéen. Mhm. ba tax na suñu état bi. Mhm. bu amee yenn structure yu mel ni AGS. AMO. yu mel ni Maison Rose. nga xam ne structure yoo xam ne am nañu un statut juridique maanaam reconnaître nañ leen. bu ñuy yëngu si loolu nguur gi aussi da leen a war a dooleel. non seulement doole leen aussi fësal seen liggéey ba tax na. ba loo xam ne population bi ñëpp dinañu xam que ne ah AJS bu ma amee problème bu ma wootee seen numéro vert wala su ma wootee euh, AMO wala foofu existe na maanaam aussi am na lu ñuy naan euh, vulgarité des textes mhm. ñu siiwal fësal textes yi nga xam ne day wax àddu ci droit yi àq ak yeleefu jigéen mhm. ce qui fait jigéen ñi bu ñu xamee luy seen àq ak seen yeleef mhm. dinañu gën a ñeme mhm. dinañu gën a ñeme parce que jigéen bu ñemee rek dina mun a affirmer wu comme on dit ba tax na nguur gi war na fësal structure yooyu mais aussi am na ñoo xam ne ay structure am la lu mel ni takk der yi lu jëm ci police lu jëm ci gendarmerie lu jëm ci sapeur pompier nga xam ne ñooñu ñëpp dañuy daal di liggéey ak structure yooyu ñu visité mais aussi ñu dooleel leen xamal leen aussi que ne liggéey bi ci ngeen bokk da ngeen ko war a def seen yëf xamal askan wi yëpp que ne am na structure yoo xam ne ñu ngi fi di alerte ñu ngi fi di gunge ñu ngi fi di accompagner ñi nga xam ne elles sont ba tax na koo xam ne métital nañ la doo ragal a boole wala doo ragal a dem fi nga war a dem mm-hmm. bu loolu weesoo aussi ñu ngi lancé un appel aux autorités étatiques mm-hmm. maintenant aux décideurs aussi aux responsables coutumiers et religieux mm-hmm. parce que aussi dañuy wax boole ci aussi dans un contexte ñoo xam ne suñu culture mm -hmm. euh, les dañ cee am doole les responsables religieux am ci doole aussi ba tax na ñoom tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di lancé appel ba ñu am may nopp déglu jigéen yooyu ñuy métital ba mun leen a fekk ci seen métit gunge leen ba mun a saafaara loolu mhm. appel boobu daal ñu ngi koy lancé à ces différents responsables mais ñu ngi koy aussi lancé à l'état sénégalais mhm. parce boo xoolee ki ngànk projet bi di voix leadership euh, voix leadership des femmes mhm. nga xam ne c'est une ONG canadienne bu nekk fii basé wu Sénégal di accompagner projet boobu kon dimbal na la fekk loxo boroom mhm. ndegam ñooñu ñooñuy jàppale ñun aussi dañoo ko war a def suñu yëfu bopp ba nga xam ne métital yooyu dana fi jeex mhm. euh, madame Diabou Kofilef yaakaar naa ni woote bi benn la tey jii yéen itam euh, seen kuréel yéen a ngi def seen jéego tey jii boo leen yaakaaroon dimbal fenn ngir gën a jëm kanam fan lay doon lu ñuy ñaan ndimbal comme ni ko Njilaan waxee léegi. ndimbal na ci fekk loxo borom. ñun mun nañu daal di joxe ay conseil déjà ne nii ak lii de buñ ko defee. métit yi ñuy jàmbat dina wàññeeku. su ma seetee ne xam nga léegi léegi nii wax na ay euh, takk der yi. ay sapeur pompier. ñun li ñu xalaat aussi boo xoolee. situation jigéen ñi. Mm-hmm. ak état psychologique bu ñu nekk. Mm-hmm. maanaam seen xel ak seen xol fu ñu toll. Mm-hmm. li ñu gën a soxla mooy encadrement boo xam ne ne psychologique la. moo tax ñuy laaj ndimbal fi mu nekk nii ñu ngi nekk di teg benn kuréel boo xam ne ne ñi ko ñi ci nekk. mooy ay psychologue des psychiatres ñi nga xam ne ne. xam nañu ni ñuy waxee ak ni ñuy dégloo ku am problème ñëw ci ñoom mhm. te loolu li ñu koy defee itam ñun dañuy nekk ci ginnaaw di leen xelal ne ah bu dee bii contexte la kat il faut que ngeen xel di ngeen di jëlee nit ki leen di wuyu il faut que ngeen fexe ba nga xam ne ne lii ngeen di def mu nekk ci sutura mhm. parce que bu weesoo loolu rek victime yi dañuy toog seen place du ñu sañ a wax mhm. gis nañ ko bi ñu demee Maison Rose gis nañu ñan la maison Rose ak accueillir mais euh, du ñooñu ñoo ñëw de daal di ne euh, xaaral lii ak lii la duñ ko wax parce que ñu bëgg a ubbeeku dañuy ragal après nuñ leen di xoolee mhm. léegi pour euh, vraiment ñu moytoon di ko loolu yëpp Mm-hmm. ñun suñu idée mooy créer benn cellule d'écoute mm-hmm. bi nga xam ne ne ay médecin ak ñi nga xam ne ne ñooy yëngu ci boobu domaine madame Dia euh, dogguma la sax ñu jël ku nekk ci ligne bi dellu si waat mbokk mi asalaamaaleykum ñoo ngi fii ñu ngi koy wax Fatou Touré mu nekk réseau civil jigéen mm-hmm, madame Touré waaw maa ngi doon studio bëgg a dugg nag sànq tey dama am problème pour dugg dalal ak jàmm eh, waaw coupé ti na de réseau bi daal moo am problème ñu koy jaajëfal bu baax a baax ndax comme nee na boobaak léegi mi ngi jéem a dugg ci biir émission bi muy euh, madame euh, Touré sànq yaa ngi koy wax madame Dia madame Dia ci li nga xam ne rek mooy war nañ koo def ba jigéen ñi mën a dal ci seen wàllum xel xel ak xool daanaka moo yor nit ki ci boppam mu doon mbir mu am solo mi nga xam ne rek plaidoyer boobu ngeen di def yéen waa ko fi lef ngir euh, nguur gi fekk si leen si waaye itam ngeen mën a am ay nit yi nga xam ne ñoom ñoo mën a dalal ñi ni mel ndax amaana xëy na ci loolu la ñuy yëngu ñoom ñoo mën a déglu ki nga xam ne dafa am problème bu ñëwee mu am déglu bi ñu koy déglu ba mën koo orienté ci li nga xam ne ci lay jëm waaye mbas mi mi ngi fi ba tey daanaka jugeew fi donc dañuy jàpp ni métital yi ñu ngi koy xeex waaye mi ngi am ba tey itam moo xam mu feeñ wala mi ngi nëbbu ci biir kër yi ban message fort la kuréel bu nekk ci yéen di lancer ñi nga xam ne moo xam ñu ngi koy dund wala bokk nan la ñuy def ba bañ a dund li ni mel Aïcha oui mm ñun pour message bu ñuy lancer mooy di wax euh, kenn ku ci nekk war nga xool yi jigéen sa bopp Mm-hmm. surtout période bi nga xamante ne moom la mbas mi nekk. Mm-hmm. te war a xoolaat encore ñaax képp ki nga xamante ni moom mooy yeewoo fii ci Sénégal wax leen ni que ni jigéen c'est une perle raax donc dañ ko war a prendre soin wax état bi également mu def un clin d'œil mu jël temps teg ko ci li nga xamante ni moom mooy violence basée sur le genre. Mhm. mu nekk mbégteel li nga xamante ne jigéen yaa ngi koy dund. ñenn ñi sax dañuy nangoo wax ñenn ñi duñu nangoo wax. Mhm. parce que comme ni comme ni ko comme ni ko madame Dia waxee. Mhm. dañuy bañ nit ñi reconnaître xam seen problème. juste que ñun suñuy liggéey heureusement dafay am li nga xamante mooy anonymat. Mm-hmm. du ñu xam mën nga raconter sa histoire kenn du xam ki kii diw mooy wax. Mm-hmm. donc c'est facile nañu fréquenter structures yi ngir ñu ñu mën a am li nga xamante ni moom mooy xam seen xam seen droit xam ñoom lu leen war. Mm-hmm. xam également yoon lan la lan leen may ci bépp problème bi nga xamante ne am nañ ko ci société bi. mu doon lu am solo xaaral ñu jëlaat mbokk mi ci ligne bi rek mbokk mi asalaamaaleykum waaw réseau bi moo taxoon mu dagg madame Thiam la. ma Thiam bokk ci réseau Siggil Jigéen. Euh, tey nag euh, dama leen gis ngeen di waxtaan ci thème bu am solo. Mhm. mu nekk euh, violence basée sur le genre bi. Mhm. en période de Covid 19. Mhm. mais li ma ci neex ba gën ma see neex mooy li ngeen di wax accompagnement psychosocial bi ngeen ci bëgg a dolli. ma yaakaar ne loolu tamit am na solo lu bëri. ci li nga xam ne liggéey bi nga xam ne tey moom la ñu war a sumb. ci gunge jigéen ñi ak gunge vraiment ci métital. yi nga xam ne ñu ngi koy def jigéen ñi ñu gungee ko ba réduire ko. Mm-hmm. Euh, ma kontaan bi ma déggee également ne foofu am na ñetti association yoo xam ne ña nga ko mm-hmm. rek waaye ma bëggoon leen a laaj tuuti rek. Mm-hmm. Euh, accompagnement psychosocial boobu moom euh, mooy lan ak ni ngeen ko fas yéenee jàppandale. waaw. ñu déglu ko rek moom dégg ngeen madame Thiam li muy laaj ci accompagnement bi ci boppam ani nan ngeen koy defee ak lan lay firndeel. waaw jërëjëf euh, madame Thiam ci laaj boobu. Mhm. ci laa doon ñëw jëm si sax. parce que bu ñu nee dañu am projet boo xam ne dañu bëgg a mettre benn structure d'accueil dañ koy tuddee sax li ñu naan benn clinique psychologique bi nga xam ne ne dinañu créer benn numéro boo xam ne ne moom képp koo xam ne ne da nga bëgg a woote ci mbir yu mel noonu bëgg ku la jàppale foofu ngay woote. numéro bi loolu rek lañ ko yi keneen mënu cee wootee mhm. bu ñu defee loolu ba ah, pare maanaam maanaam ku ma leen dégloo bu baax. Mhm. dafa mel ne dangeen di jàpp ci seen métti. di ngeen di ngeen sensibiliser nit ñi di ngeen dénoncer li ñu leen di def waaye da ngeen ciy jàpp ba euh, dimbale leen daal ñu faj seen ay soxla. Mhm. waaw kay. jërëjëf waaw mel na na ne loolu laay percevoir. waaw loolu loolu la bëgg leen dimbali moo tax ñu jóg. parce que maa ngi mu ngi wax euh, Kofilef waaye dañu mm-hmm. am ci ñun comme li mm-hmm. naa la mooy jigéen yi nga xam ne ñooy jàngale ci daara yu mag yi mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ne ñu ngi yëngu ci mbirum li ñu naan psychologie wala psychiatrie ñooñu takku nañu fi mu nekk nii ñu ngi bëgg a def sur pied cette structure euh, d'écoute et d'accueil pour ñëpp ñi nga xam ne ne dañu nekk ci li ñu naan euh, ay tolof-tolof ci li tubaab bi naan situation précaire Mhm. li ko commencé d'abord ci suñu étudiante yi parce que ci biir étudiante yi ngay gis ñoo xam ne ne buñ la ko waxee buñ la ko waxul xam nga ne ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne ne doo xam ne mën nañu toog rek wax ko wala dem ci assistante social université bi wax ko il faut que ñu am benn structure boo xam ne ça s'est établi dans la plus grande discrétion pour mën a mhm. ci sutura wax li ñuy wax ñu fajal leen ko te kenn bañu yëg loolu loolu ci loolu la ñuy loolu am na solo parce que euh, yaakaar naa ne euh, dénoncé rek ak wax li nga xam ne moom la jigéen ñi di dund loolu baax na dina sensibiliser waaye gunge leen également ba ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ba yenn métti yi nga xam ne euh, ñi ngi ko am ci biir ñi ñi ngi ko am en plus ci biir feebar bi nga xam ne moo tax ñu am benn benn confinement ci biir kër yi am également ñàkk yi ñàkk bi am vraiment lu bëri loo xam ne moo koy indi feebar boobu vraiment indi ay coow indi ay métti ci jigéen ñi su ngeen leen gungee ba jigéen ñi mën a faj seen ay soxla ça veut dire jigéen ñi mën a am fu ñu jooyee seen métit waaye am fu ñu leen gungee ba ñu mën a faj seen métit loolu dafa am solo loolu moo tax ma ne ah xaaral ma dugg parce que li may dégg daal nekk na loo xam ne euh, lu jigéen ñëpp war a partagé la nekk na loo xam ne lu Sénégal yëpp war a xam ne ne léegi ak euh, voix et leadership des femmes euh, euh, bi nekk Sénégal vraiment ñoom ñu ngi taxaw ci accompagnement social u jigéen ñi parce que loolu dafa am solo day delloo ci nit ki ci boppam delloo ci ko également ci ci environnement am permettre ko ba mu nekk nit boo xam ne dañ koy delloo ci biir dignitéem donc loolu laa amoon lu may laajte di Euh, looloo taxoon ma dugg guddi sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo toog foofu rek di def liggéey bi. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax madame Thiam. maa waaw kay ñu ngi lay fay ñu ngi lay jëfal bu baax a baax mu doonoon rek madame Thiam bu réseau euh, Siggil euh, jigéen bi ñu dab ci waxtaan bi dellu siwaat bu baax a baax ci suivi bi nga xam ne rek yéen a ngi koy def euh, ban njeexital la am ak ku ci bëgg jot ani ban yoon lay jaar mu doon lu am solo lool lool waaye dafa mel ni rek li ñu cëraloon ci waxtu daanaka yemb na ñu ngi koy def ñu def benn tour de table rek xamal ne nit ñi ni mbas maa ngi fi ba tey ani nan la ñuy def ba moytandiku mbas mi déjà Mm-hmm. jërëjëf euh, soxna Betty. Mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal di sant itam euh, madame euh, Thiam. bu mm-hmm. Siggil Jigéen. gis nañ taxawaayam te vraiment laaj yi mu laaj am na solo. parce que nit boo ko laajee ci li ko tax a jóg. mu tax mu mobiliser wu pour di gëstu ci benn jafe-jafe boo xam ne ne jigéen ñaa ngi koy dund. fekk xalaat na ne itam. nii buñ ko defee dinañ ko war a moytu mhm. waaye comme ni nga ko waxee rek li mët a moytu itam mhm. te mu ñëw daanu suñu kaw mhm. yal na ko fi yàlla teggi ci kattanu suñu borom wante tamit yàlla yàlla bay sa tool il faut que nit ñi di continuer li ñu naan mesure barrière yi nañ ko continuer di ko appliquer parce que booy ñëw même ci yoon bi sa yaram bi day daw bu ñu la ne nit ñi nee nañ leen ñu takk masque diggante ki takkul masque ak ki nga jël jël masque bi mu ko lonk comme caq mhm. loolu yëpp am na mhm. defe naa ne itam war nañu autorité yi mhm. dem ci télévision yi jël parole jaar ci bàjjanu gox ñi pour yee nit ñi won leen lan mooy njëriñu masque lan la nit ñi war a xam loolu fajkat yi wax nañ ko médecin yi wax nañ ko expliquer nañ ko booy seet masque bi du la protéger yow mii de. Mhm. Marème yow mii ne dangay ngay takk masque du yow mhm. lay protéger. Mhm. déedéet Aïcha mii nga janool di wax ak moom moom lay protéger. Aïcha itam bu ne war naa protéger wu pour moytu Marème ku nekk bu moytoo sa morom rek jàmm na ñooy. kon daal esprit solidarité boobu. mu war a am ci mesure barrière yi ñu war a def. ku ñu ne raxasul it bul defe ne dañ laa ne dangaa salte c'est parce que dafa war a nekk. habitude boo xam ne ne doo mën a wañ ñi ñaata yoon par bés sax ngay raxasu mhm. jërëjëf kon nag euh, vraiment ci loolu laa jeexantalee mhm. di ñaan lépp li ñu fi wax tey mhm. mu bañ a li tubaab bi naan nekk lettre morte parce que ya am nañu njorte ne bu ñu jàppalee ci li ñuy def bu neexee yàlla duñ ci gis lu dul yokkute ci jigéen ñi te ku ne yokkute jigéen wax yokkute askan wi yëpp. Mhm. maa ngi leen di remercier bu baax a baax jërëjëfati. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñi laan itam pour euh, jeexal rek sànq madame jam mu ngi koy wax yokkute jigéen mooy yokkute askan wi waaye nit ki bu amul wér gu yaram rakaar naa ne du am yokkute te fi mu ne nii mbas mi mi ngi suñu biir jigéen ñi ñoo yor kër yi ñooy yor gunay ani lan nga leen di ñaax. d'accord merci soxna Betty. jigéen moo yor kën dañ koy wax loolu warul nekk euh, ay waxu kese mm-hmm. jigéen yi dañ ko war dund seen kër yi mm-hmm. wane ne jigéen mooy yor kër mm-hmm. rawatina ci jamono mbas bii ñu toll jigéen yi war nañoo am une surveillance ci seeni doom parce que boo rombee ci biti nekkul ne taalibe yi kese ngay gis ci biti mais da ngay gis xale yi demuñu école mais togguñu aussi ci kër yi. Mhm. et pourtant bàyyi nañu yaay foofu. Mhm. même su nekkee yaay bi day yëngu dans le secteur informel aussi nit war nga teg say gët ci sa kaw njaboot. Mhm. xamal leen ne leen mbas mi mi ngi fi demul dañoo war a respecter les mesures barrières. ñu ngi aussi continuer di sensibiliser nit ñi. dinaa naan nit ñaa ngi dem ci mbootaay yi ci xew yi. lu mel ni ay ngénte ay yooyu noonu lu ci bëri rawatina jigéen yi lay doon mhm. jigéen yi dañoo war a jàpp seen xelkane mbas maa ngi fi ñoom dañoo war a jàpp ci xeex bi bokk ci xeex bi gàddu sensibilisation bi aussi sensibiliser commencé ko par seen i njaboot yar mhm. seeni njaboot ci mesure barrière yooyu ñu respecté ko mhm. su ko defee nag ñoom jigéen ñooñu nga xam ne aussi ñoom la ñuy métital parce que mbas mi tax na ba façon métital yi gën a feeñ laay wax gën a feeñ mhm. tamit tali yi dañoo bëri ay façon am na lu ñuy naan des violences verbales am na lu ñuy naan des violences morales ba tax na ba nga xam ne jigéen ji xelam bu dalul mhm. famille bi du mun a normal mhm. nañu dalal jigéen ñi ñu defal jigéen ñi nañu jàpp ne jigéen ñi dañoo am àq ak yeleef ñu jox leen ko ba mu mat sëkk te jigéen ñi xam aussi képp ko ci nekk victime mu métit mu xam que ne du wéet ci xeexam comme ni ko tàmmayram waxee dina am structure ko sociale boo xam ne dinañ leen gunge ci loolu jàppale leen ba estime de soi boobu nga xam ne dafa am importance ci nit mun a dellu si ñoom ba ñu mun a defaat face à la vie. Mm-hmm. Aïcha man su may jeexal ak yow damay ñëw ci wàllum ndaw ñi mm-hmm. parce que am na li nga xam ne rek ñi ngànk wàllu wérgu yaram ñu ngi koy fësal jàpp ni amaana mag ñi xëy na dañ doon dem ay levée du corps yi ni mel ñu tere leen ko mag ñi toog ci kër yi tey jii mm-hmm. mbas mi fekk leen fa jàngoro bi dal leen amaana ndaw yi indi ci biir euh, kër yi tey di leen ko wàll euh, tey jii lan ngay ñaax ndaw yooyu le euh, man li may ñaax ndaw yi ndaw yi mooy ma nekk ndaw comme comme comme ñu nekk samay morom également. Mhm. damay ñaax ñu gën a am engagement. Mhm. gën a am responsabilité newuñu amuñu engagement am responsabilité mais nañ ko gën a yokk. Mhm. dafa nekk lu ama ama ama solo kenn ku ci nekk boo taxawee ne man mi responsable la yéen nii du ko def yéen nii dama koy éviter. donc dafay permettre tey gii nii. ñu ñu mën a. ñu mën a xam ne ñun ay kilifa lañ. Mhm. ñun ñooy nekk ay kilifa yi ëllëg. te mhm. déjà du ñu commencé nekk kilifa dès maintenant. Mhm. daf ñuy permettre tey suñu kilifa suñu kilifteef boobu noonu. ñu mën ko yóbbu ba kërëgee ñuy ñuy ñuy faatu donc. lu ñu wax mooy nañu res ñi nga xamante ne mooy suñu mag yi ne ci kilifa yi nekk ci biir kër gi. en quoi faisant bu ñuy génn ci biti nañu sol suñu masque. nañu bàyyi également da jël suñu fulaare wala suñu morso yi di ko tax suñu bakkan loolu nekkul masque. masque yi defar nañ ko am na am na yu nga xamante ne dañ koy fóot am na yoo xamante ne dañ koy sànni. Mhm. donc nit ku ci nekk li nga mën. loolu nga war a def. nañu utiliser masques yi normalement comme ni ko bi diglee. di fa di fàttali ne dañu war a raxas suñuy loxo yi. chaque fois que ñu génn war nañoo raxas suñuy loxo yi même su fekkee mënuñu am au moins gel gel gel gel hydroalcoolique yi. mais nañu raxasoo ak saabu yi saabu ordinaire yaa ngi fii. nañ ko raxas ba mu set. dugg si biir kër yi ñu éviter tout le temps di nekk en contact ak suñu mag ak suñu suñu suñu suñu mag yi suñu maam yi ne ci kër gi mhm. te mën na ko contaminer sans pour autant ñu tey ko mhm. donc ci loolu laay ñaaxee sama morom jeunes yëpp ku nekk mhm. jël engagement ni Covid bi dafay génn suñu réew ñu leen di jëfal bu euh, baax a baax fii la émission bi di yem di jaajëfal kuréel gi di ko Cofilep waaye itam réseau euh, forum des éducatrices africaines ak réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales ñu ñu fi euh, teewaloon tey ji ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne rek ñi ñu ko may bokk na ci voix et leadership des femmes ci njàppandalu CECI Sénégal ak réseau Siggil Jigéen ñu waxtaane woon waxtaan bu am solo mooy ci wàllu mbas jigéen yi nga xam ne ñu ngi jànkonteel ay métital ak i tolof-tolof ci seen biir kër ani taxawaay bu am solo bi nga xam ne rek yile kuréel ma lim ñu ngi leen koy amal ñu ngi leen koy jàppale waaye itam ñu ngi leen di orienté ci seen wàllum xel seen wàllum nekkin ba ci seen wàllum wér gu yaram mu doon ay mbiix yu am solo di leen dox dig daje ci beneen émission incha allah. voix et leadership des femmes bu sësi Sénégal réseau sigil jigéen ànd ci ak rajo Afia FM ñoo leen jagleel bile émission ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni dafa aju ci fitna ak métital yi nga xamante ni ñi ngi koy teg jigéen ñi nekk ci biir kër yi ban taxawaay leen war a amal ci ñoom ci wàllum xel ak xalaat waaye ci wàllum nekkin soxna Yvette Betty Mendicor dina si dalal ñii di waa COFILEF waa réseau des jeunes pour la promotion et l'abandon des mutilations génitales féminines éducatrices africaines ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ngeen mën see bokk bu ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 Afia FM ngir Afia askan wi.